askan wi nañu bàyyi seen xel ci li Macky Sall ak ay ñoñom bëgg a dugal seen i xel. parce que li ñu bëgg dugal seen xel. mooy bu ñu demee élection législative yi di ñëw. bu opposition bi amee majorité. réew mi day bloqué wu. réew mi mënut a wu maintenant bu fekkee bloqué réew mi mooy. train express régional bi ñuy def six cent milliards. bu fekkee bloqué mooy ñun train bi defatuñ ko parce que askan wi dañoo ndóol nañ jël six cent milliards yooyu dugal ko ci askan wi bu fekkee loolu mooy bloqué mais dinañ bloqué ku ànd ak moom mu baal la. ko àndul moom mu jàpp la tëj ci kaso bi bu fekkee loolu mooy bloqué mais bu ñu demee foofu dinañ bloqué mais bu fekkee bloqué mooy maanaam en fait lépp lu baax ci askan wi ñu ànd ceeg moom liggéey lépp lu bon ci askan wi ñu bloqué ko assemblée national loolu mooy rôle sax assemblée nationale. président la République bu mënta bu ko rakkam mënta déggal mais kan moo koy déggal ci réew mi. les sénégalais ne veulent plus de la dévolution familiale du pouvoir. fa ñu bëgg a yóbbu wax ji mooy gañe nañ ñu parce que Aliou Sall nekkul tête de liste mais ko bàyyi mu nekk tête